bon man man en fait je me rends compte encore chose. Ah. et c'est terrible <laughs> ça c'est c'est su dee des membres du gouvernement de la mouvance un ministre un conseiller ak un journaliste boo xam ni. ah déet ma sama xalaat la. non non non du sa xalaat yow. Ah, affaire nga bokk ah déet sama xalaat la munoo assumer loolu. affaire nga bokk affaire nga bokk. c'est pas besoin d'être de ah, yor carte vous vous faites pire que ça non non arrête ça ce que je dis li nga li nga li nga bind ci Ousmane Sonko li nga bind ci Ousmane Sonko ak Tullow Oil bu la ko doon topp heure bi waxat yaa moom amoo nëbboo ku ko lire dans les affaires yi nga cité kooku moom noo wax sax ku ku nekk ci média moo ko moom mais passons. Hmm. ñii boo leen dégloo. vous vous rendez compte quand vous dit que Macky Sall est réellement en fin de règne le discours bi nga dégg des gens qui disent qu'un maire de Ziguinchor dans le cadre de la coopération décentralisée ni nañ Le Havre pour ñëw coopération décentralisée nga bëgg segg ci ñooñu kan mooy góor jigéen ou pas l' essentiel ba ñu ñëwee Le Havre ba ñu est ce que projet genre moo leen indi woon Macky Sall a reçu a reçu Justin Trudeau ah oui booy wax ci homosexualité ba jàpp kooku bàyyi bañ na ko ba bi mu ñëwee da ko doon jéem a convertir pour mu dépénaliser léegi il l'a reçu c'est une visite officielle waaw dama lay waaw léegi nga nangul Macky mu recevoir le père de ki nga xam ne au niveau mondial mooy promouvoir homosexualité ah. Ousmane Sonko dans le cadre d'une coopération décentralisée kooku ñu ne la moom moo yore cellule genre tey nga ni genre homosexualité y a un link léegi nangu ngeen ko c'est officiel genre LGBT xam nga boo demee si cellule ba genre lañ fa bind binduñu fa LGBT mais yii c'est des détails qui montrent encore une fois quand le niveau de décrépitude intellectuelle de ce régime ñii fi toog di ko défendre niveau bii ñu toll man ça